li safinatan ci wàccaayu weeru koor gi sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir xalifa général des Mourides demoon na ci diwaanub njaareem ñaari fan yoo xam ne sëriñ bi amal na ko fa ni nga xam ne noonu la ko defee woon daaw loolee sëriñ bi yeesalaat ko dem fa nag daal di yeesalaat ndigal gi nga xamante ne ni jox na ko rakam di sëriñ Fallou Mbacke moom sëriñ Basiiru ngir mu ànd ak sëriñ Isaaxa Mbacke ñu taxawee li nga xam ne moom moo di fulkum njaareem bi sëriñ bi nag daka daan teewee waaye liggéey bi nga xam ne moom moo koy xaar ci bërëbu seere bii di tuuba loole moom moo waral mu denk liggéey bu ni mel ñi nga xam ne ñoo di rakkam yooyu ngir ñu ànd kook mboolem taalibe yi ci diwaanum njaareem ci diirub weeru koor gi sëriñ bi nag bi muy ñëw ci dëkk bi mi ngi ànd ak jëwrinam di sëriñ Moussa Nawel ak yeneen jëwrin yi nga xam ne dañoo nekk ci kër gi diiru muy nekk nag ci njaareem bari na daayira yoo xam ne ñëw nañ fa ziyaare si ko ak ay kilifa ak njàngum xasida yoo xam ne am nañ fi mbokk yi ñu ànd ak yéen dëgtal leen mboolem ziyaar yi nga xam ne am na ci kër gi ci diirub sëñ bi mu fi nekk fii ci njaareem ak mbooleem temps fort yi nga xam ne am na ci nganub ñaari fan yi maa yusraha saayirun li huddan yasxat hiya diyaaru diyaarul xaqi wa diini xabaltu kawniya abdallahi xaadimahu wa kawnuhu liya yowma alasi wa diini lillahi aqbaltu بالمختار ساق دم وقد كفاني بما كاد يرديني نويت سكرك في إيسى اليوم يا سمدي يا الله سرحيني قبل الرأي وسيني يا من يكون مع قسى بلا سبب كون مرادي ولير ما يقسيني بتي والجسب عبلي سؤلدون عنا يا خير مخن مرب قد يخليني ربيتني فلتوسلي أنا وخدا بلاه ثياب وكني تعليني عبوتني بالذي خد فاخ مدلبتي فلتكفني كل هين كل منون مني تقبل وسد صغري وسد مددي واجعل سكوري بصرى هورك الهين توجهي للذي ترداه من عمل ومن مقال وكل شوي تكفيني كفيتني سماحا والهري ما سقب وبالكتاب الذي أنزلت تدفيني فجر ينابيع ماء القيب في خلدي واعسن لسانية من لهن الأسانين يا ربي صل بالدين تسليم على سندي ولالي مع سبه سم الأرانين عليه صل وسلم بالجميع وقود نيل البقيه لسبت دم ومثوني بتيجد لي ورلي كل ذي حسد مناته بسنان سرك منون أنت المجيب الذي نجيت من حرق نوعا بفلك عتيم منك مزون دعاك من قبل ساداتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممون كون جميع الذي أهواء في عبد بكن ور لي أهدائي بتمريني إني لعبد خديم سرت ضيفك يا ربي وبالحق والإصلاح تغريني ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري يسا جوف الفرا للورى مثل المهارين ليكن بكن سرمدا واجعل مسيري يسا جوف الفرا للورى مثل المهارين صرفت حاجي لمن يخلي الجميع بكن وحتى وزلوا به الممدوح في النون أهل البلايا وأخساها وأكرمها عند الذي جاد لي بالميم والنون لمن كساني ورواني وحتى حمني يا راحتي ساكرا كاللوه والنون حبي وهدي waaw mbay saw doomu wut saw waaw وهدي ورلواني وعمدتي لمن عباني بما قد فاق مسنوني يا ربي صل بتسليم بلا حدد على بشير نسير منك ممنون نبيك المصطفى بساله نمها وكن بكنية في بعاد ومكنون نبيك المصطفى بسعالين معا وكن بكنية في بعاد ومكنون بس li muy addi ji mu ne li muy xidma bi. mu ne li muy addi ji li muy xidma bi. mooy waaw. waaw tubarkalla tubarkalla. ñu gën a sant suñu laxasaay ñu itam rek. di ko ànd ak yéen ba ko. laxasaay gi rek aussi ñu ngi gën a ànd ak yéen. alhamdulilah bu ci gën a mën a liggéey. ak sa waaw mm. tubarkalla. mu ko seet ak gën a seeral suñu xol.

day day dolli ko di wéy. jërëjëf sax ba amul fu mu yem. kon nag cant suñu suñu sant ak suñu cant ak yéen suñu ngërëm ak yéen amul fu mu yem. moo koy seere rek ba mu gërëm liggéey bi. Fatma rek xam naa gën a xanaa gën a ñaan rek. incha allah incha allah toog na ñu am dina ko dolli ba faw. toog rek la ñu am sëñ bi. kon nag. dafa jooju moom la ñuy ñaan rek. ñu ñu ñu ko dooleel ba faaw. parce <laughs> que faaw mu àjjana rek. ñu dul ko dooleel ba faaw mu àjjana rek. yaakaar naa taw bi biir àjjana it. ña ko fa am defe daañu daañu daañu ndax yaa ngi ko ci ñi fi nekk. incha allah incha allah amiin amiin. incha allah incha allah. kon loolu ànd bi yéen dong la woon itam. moom ma ma ma ma réussite lool si wàllu. wallaahi wallaahi alhamdulilah. sant suñu borom. alhamdulilah sant suñu cant bi. alhamdulilah waaye ñu boole ak sëriñ bi. alhamdulilah dëgg la moom la moom moom bind. moom moom moom moom suñu lépp. alhamdulilah waaye noo ngi koy noo ngi koy noo ngi koy sant nag ci boole gi ñu boole sëriñ bi. ñu ngi ko yeesal waxtu bi nag ci a bëri sëriñ sant sëriñ bi it. lépp. alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir am ngir mu jëf ba sant fi jaaraay jërëjëf rabbuna jaraw lak baali hakada cheikhina alqadim doomi jaar li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna